salaamaaleykum suñu mbokk yi nga xamante ne dañuy safoo El Vision Médias man Sista Eva maa ngi dellusiwaat tey ci seen émission débat du jour ñu dajal fi benn ndaanaan boo xamante ne macha allah kenn dootu ko présenté ñu gën ko xam ci Abdou Guèye euh, muy Guèye création Abdou nuyu naa la. fay naa la bu baax a baax soxna si. waa tey débat du jour dalal la nga am 3 points yoo xamante ne war nañ si waxtaan dama lay daal di bàyyi rek nga présenté wu wax dan euh, moo waraloon sa tànk ci El Vision. waaw maa ngi nuyu ñëpp euh, di jiital ci nuyoo bi sama grand sama xalaat sama xarit di directeur.

waaw loolu lu ko waral lenn warul lu dut euh, jumte bu rëy laa ko mën a jàppe mhm. parce que soo xool Sénégal bëri na ay métiers professionnels yi fi nekk ñoo xam ne jàng nañ seen métier maîtriser ko mhm. kon yaakaar naa suñ demee ba di jël euh, usine bu mel noonu di ko def jam ñaajo war nañ see bàyyi jeunesse bi parce que tey soo xoolee soo génnee ci mbenn bi soo gisee miniser balaa nga ko gisaat di nga dox lu bëri mhm. mais tamit téer demewul noonu téer da gis benn koñ met ay nekk fa kon téere ñoo yelloo jàppale mhm. te loolu mu def juumte laa ko mën a tuddee mhm. juumte la parce que ñun ànd ñu si tey ànd ñu si ëllëg parce que soo jëlee chinois yi nga dugale ci métier théorie mhm. kon yaa ngi wax jeunesse bi képp kuy jàngi métier rek yow wa nga seet leneen parce que doo ci am ndam euh, ma gis na est-ce que du fautif bi nekkul ci yéen parce que le président Macky Sall defe naa bi muy defar loolu euh, war na taxaw ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiite ci métier métier bi ñi nga xam ne mooy association tailleur yi defe naa dalal na leen parce que am na ci ñoo xamante ne ñoom euh, lii nii président defar euh, à Diamniadio concerné na leen parce que ñoom ñu ngi ci biir est-ce que di ñooñu ñoom ñoo ñëwul informé leen euh, wala ñooñu ñoo amoon loo xamante ne ñoom dafa am benn jublang boo xamante ne ci ñooñu la nekk mooy ñi nga xam ne tailleur yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu mm-hmm. ñu leen di wax les VIP mooy ñu nekk ci kaw est-ce bi nekkul ci ñoom waaw parce que benn instant mm-hmm. communication da ci am mm-hmm. parce que ñi ci ci suuf Mhm. parce que euh, tey li ñuy célé li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy ñaxtu. Mhm. mooy métiteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw. Mhm. Euh, am tur lool. am teraanga war na xeexal métier bi. ñoom jaay nañ seen ngor. jaay nañ seen dignité. jaay nañ seen capacité. jaay nañ seen niveau ànd ak président ne ko lii nga lii nga xam ne yaa ngi koy bëgg a def jam ñaajo ñun métiteurs yu mag yi. ànd nañ ci te ñun métiteurs yi lu ñu ànd métiteurs yu ndaw yi ànd nañ si alors que c'est faux parce am na mes téere yoo xam ne dañ leen see corrompu mhm. ay corrompu yu lañ mhm. ñoo xam ne ay téere yu mag leen xam nañ leen ñu nekk Sénégal mhm. ñoo xam ne bu yàggu rek maa am ku ma si dégganteeg euh, mu ne ma ministre bi dalal nañ leen mais ministre bu mu leen wax bañ ko déggee dañuy xam ne euh, ñun téyeer ndeyu ñun ñoo xamul lu ñuy kaas mais suñu avantage la mais c'est faux avantage mënu ci am parce que soo demee ba euh, téyeer yi daan ñëw veille yi veille yi nga daan ñëwloo baat 4000 bëkki démb rek sama appareil mun naa la kaa wan mhm. baat boo xam ne léegi mesures yi ñu ngi koy jaay 750 mhm. baat bu ñu daan jaayee 4000 mhm. léegi ñu koy jaayee 750 léegi ñun fan lañu jëm kon métiteurs yi nga xam ne ñoo nekk métiteur professionnel te ñu nekk si kaw ñoom waxuñu dëgg tey waxuñu dëgg ëllëg seen bopp lañ fi nekkal mais nekkuluñ fi ndaw ñi ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci suuf amuñu dara amuñu benn capacité amuñu benn niveau pare nañ pour ne nous disons non parce que su amee rek mais yi nga xam ne teurs yi nga xam ne ñu ngi jàng si mhm. école de formation yi mhm. dañ naan ñoom suñu jàngee pare duñ tari mhm. te kuy jàng da doo tari yow ngay jàng perte temps la kon métti teurs yooyu li ma ci mën a wax mooy am na métti du ñëpp nekk am na métti teurs yu mag yoo xam ne ñoom ànduñu ci mais am na métti teurs yoo xam ne ñoom pare nañ si parce que ay politiciens lañ am na maître tailleur yoo xamante ne pare nañ ci ndax ñoom ay politiciens lañ. Hmm. ma gis ne euh, tamit fautif bi mën na nekk ci yéen d'une part parce que tamit bu defoo leen formation bi nañ waxante dëgg école de formation ngeen waroon def ñu jox leen seen diplôme. Hmm. Euh, ci boobu ci la nguur gi di mën leen jox euh, société bee ñuy tabax parce que tamit boo leen qualifié wut à 100 pour cent defe naa ne tamit duñ leen mën a jox loolu. léegi tailleur da ngay gis koo xamante ne rek day ñëw ubbi atelier tailleur am yor na xaalis jënd machine am di ko di ñaw mm-hmm. te tamit école de formation yi nga xam ne ñu ngi formé tailleur yu mag yi ñuy styliste yi pourquoi pas yéen demoo leen foofu ba nga xamante ne seen diplôme tey jii boo leen demee wan ko gouvernement bi dina xam ne ñi kat qualifié nañ société boobu ñu tabax à Diamniadio ñu mën leen ci instruire dugal leen ci biir mais da ngeen di ñëw rek di taxaw fi ngeen taxaw di kaas naan président dafa jël kii bi jox ko chinois et tout ça te est-ce def ngeen formation euh, tey su ma doon wax

suñ jàngee ba suñ jàngee 9 mois. Mhm. ba war a noppalu 3 mois mu jël ay magu tëyër nga xam ne ay kàngaam lañ am nañ bopp mu yóbbu leen euh, mbuur ne leen fexe leen leçon yu ñu war a traité. Mhm. ci at bi ñu traité ko loolu amu ci métier tëyër. Mhm. Euh, diplôme d'état man reconnaître ma ko ci Sénégal parce que reconnaître ma ko diplôme d'état euh, day fekk yéen ñëpp ngeen bokk programme mais métier tëyër yi. ni ñu may dégg. centre ko bi sa centre yaay xool lu la neex. jàngalee ko sa élève day def compo midi mhm. balaay 15 heures mhm. yow nga corriger ko yow mi yow mi nga xam ne yow yaay yow yaay maître am mhm. nga corriger ko ginnaawaat suba nga dem Dakar soo demee Dakar ne non defalee ma ko diplôme d'état diplôme boobu état reconnaître ko kon Sénégal état mënuñoo xaar foofu parce que mënuñoo xaar foofu parce que parce que organisé wul su organisé woon tailleur yi nee ni naa fexe bu weer deewee yéen le janvier ba février yéenay bokk leçons yi ngeen di jàngale ngeen toog ci trois mois ngeen bokk concours soo leen di concours maître bu ne dañ leen di change def changement. Mhm. su boobaa diplôme su génn nañ ni lii répété na ko. mais diplôme boo xam ne yow mi jàngal nit ki yaa koy corriger. Mhm. bindal ko note 10 sur 10. Mhm. su nekkee papaam du fay bu baax nga bindal ko zéro. kon ñun amuñu talent. maître tailleur yi président respecté wu leen. mais fautif bi bul ne président reconnaître leen comme que yéen ñi nekk ci seen biir yéen yi nga xamante ne yéen waroon def les démarches dem pour ñu jéem leen reconnaître comme sànq da nga wax ne eh, privé yi ak euh, public yi euh, ñoo. li ñuy jàng rek la ñu quitté bu examen jotee ñoom ñooy jokk résultat boo gisee ne résultat yi buy ñëw ci public privé yi lay ëppee de chance parce que ñoom au moins dañuy fay seen jàng bu grève amee ñoom duñu grève kon tamit lii ñi nga xam ne dañuy def formation di fay seen xaalis ci seen métier bi ñuy wax métier couturier kon kay yéen fautif bi ci yéen la nekk parce que tamit da ngeen di ñëw def ne diplôme reconnu par l'état te fekk loolu c'est faux amul kon ko jox état bi

je dis la vérité sama centre. Mhm. man maay xool leçon yu ma neex. Mhm. ma jàngale ko. ah kon kay fautif bi ci yéen la nekk nag. waaw waaw déedéet gouvernement bi la xam nga tax gouvernement bi la. Mhm. pourquoi waxul bépp métier téere boo xam ne ubbeeti na centre. di nga am capacité di nga am niveau. ba pare man maa lay jox leçon. man maa lay jox yi nga war a fiche yi nga war a def. amul. mais loolu mënuñ ko génne fii Sénégal parce que am na privé yoo xamante ne dañuy dem ubbi te fekk ne léegi koo gis ne ubbi na privé ci bi sax loolu daf ciy am. mais mais yéen a def yéen a war a def les démarches yi nga xamante ne au moins mais mais tey soxna si. Mhm. da ngay xool ne privé. Mhm. su ubbee bii këram école sax. Mhm. lesson yi muy jàngale nekkul ci ci moom moo koy bind. ministère lay jógee. effectivement mais tax ñun suñuy leçon mënut a jógee ministère. ah pourquoi pas defoo leen démarche bi tamit yàlla yàlla bay sa tool. mooy loolu rek xam nga téeri téeru Sénégal. su nekkee 90. dina métti ci wax. mais 50 pour cent xam nga la moo leen bàyyi ci téer mm-hmm. am dara tukki bokkut ak ñi nga xam ne suñ amoon ay milliards dañ ci investir mm-hmm. parce que euh ki nga xam tay tey mm-hmm. moom mi ngi jàngale centre de formation té amul niveau xamul ñaata apprenti ño am xamul apprenti bi su ñëwee lan nga wara xol jikko jikkoom nga koy jàng xol méthode bi ngay jaar kooku euh, du and ak nguur si limuy def parce que ñom niñ am na téere yoo xam ne ñoom leen yàlla may mooy naxaate ci centre formation yi mais man li ma bëgg ak sama objectif mooy tey nguur gi nañu dimbali bu at bi jeexee parce que daanaka juin juillet ñu tëj suñ tëjee nañ jël lu mat cent métiers jox leen mbuur hôtel deux mois ne leen xool leen leçon yi nga xam ni moom la sentir war a jàngale boo koy tijjee suñ ko jàngalee trois mois ñu def ci examen su boobaa élève bu am résultat dañu xam ne kii yeyoon na ko. mais parfois nga gis lu ma gën a métti ñu koy wax téye mhm. mooy centre de formation yi. Mhm. élève dafay nekk jàng. Mhm. su jàngee 3 ans 10 ans ñu jox ko diplôme d'état soo ko ñawloo pantalon du ko mën. am na élève boo xam ne moom pare na bañ jox ko diplôme d'état te mënul ñaw simis kooku moom lan la nañ waxante dëgg kooku kooku kooku ki ki ko jàngal lañ ko war a tëj. kon yooyu yëpp dafa nekk ci métier bi loo xam ne ñun duñ ay politiciens mm-hmm. ànd ñu ak benn parti mm-hmm. xam nga la lañ ànd ak mooy kiy jàppale jeunesse bi mm-hmm. président Macky Sall suñu président la suñu ferte la suñu baay la suñu lépp la mais jeunesse bi su nekkee moom bëgg na ëllëg réew mi baax na jàppale jeunesse te pour mu jàppale jeunesse bi na ci jiital ñi nga xam ne mooy jeunesse tey parce que sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg parce que li nga xam ne moom la bëgg a def yenn téere yi suñ ne métti na leen mun waxuma dama naan waxuñu dëgg parce que dama waxoon ne garniture ku ko fi bàyyiwul fi mu lay jëmee du baax parce que tey su nekkee yow dañoo ne téere bee dalaa bañ jigéen wax la ko yow nga war a toog sa biir néeg ne sagam nit damaa bañ kon man sama loxo naa ko mànd naa génne xam-xam kub kub bu rafet pour wax ne ko maa moom noonu la téyër daan defee tendance mais nit ki dara bañ nit jox la 30 000 avance nga dem asalem jënd fa gantiir yëpp benn euh, Eva ne ko non envoyé ma wari pour ma paas nga ñëw gantiire sa modèle yëpp suñu waxee ngay na ngay defante defante boobu moo ñu dugal tey si kàmbu nañ bàyyi garniture yi troisième bi am na benn metteur boo xam ne yàlla def na am na magasin du tudd magasin bi su ma paree nit ñi nañ xam kan la euh, mu ne tailleur dafa bëgg garniture bañ a amati te moom am na magasin mhm. te magasin bi chaque jour day photo ay modèle mhm. te modèle yi muy photo yëpp modèle yëpp ay garniture la mhm. mu xëy un beau jour ne non si usine chinois yi moom bëgg ko moom c'est faux parce que nit ki su nekkee da ngaa yar sa xale chaque jour ngay jox sa doom benn sëricë chaque jour nga xëy benn bon jour ne ko sëricë bi du ma la ko joxati yow jikko naa fekk jëkkal na kon kooku moom xeexul métti téer yi

nga dégg information bi mhm. yaakaaru bàyyi ñu ngi bëgg a tas mhm. yaakaaru peuple ñu ngi bëgg a tas Sénégal su nekkee duñ kaa bëgg a defar ci ndaw ñi lañ ko war a yaakaaree mhm. parce que da ngay xool chinois yi bañ duggee ci dàll ngaay yi ngaay kenn ñawatu dàll normal parce que chinois yàlla may ne ko lu mu dugg rek daaxale la ko tey suñu demee ba ba ba ay robe 3000 francs robe 4000 francs tey ba mille francs ñun fan lañ jëm kon ñu ngi bëgg a daanu. dëgg la nañu jàppale foofu laay ñëw parce que dama dégg sànq ci sa biir wax nga ne yéen euh, garniture yi ngeen di kii naan chinois yi day tout ça te chinois ñoom lu ñu def seen loxo lañ koy defaree parce que dañoo gëm seen bopp kon yéen gëm-gëm bi dafa des ci yéen parce que yéen euh, léegi ñaw yoo leen di ñaw yépp garniture rek ngeen di da ngeen di dem jël rek teg ci kon seen mën a ñaw dafa des loolu moo tax président xam naa mu jël affaire yi teg ko ci loxo chinois parce que gis na ne ñooñu au moins gëm nañ gëm nañ seen bopp à 100 pour cent yéen ñi nga xamante ne yéen ñee yéen ay tailleur yéen yéen a wane war a wane seen bopp comme ni chinois di defee seen seen loxo di liggéey ngeen liggéeyee noonu ci seen coupe loxo parce que loolu la leen yàlla may ngeen yor seen ciseau dagg ñaw ak ni ngeen ko daan defee mais léegi nag tailleur yi mënatuñoo ñaw nañ ko wax te dee li ci man bu dee 100 lañ 20 kese ñoo man geneen ñi ci des yëpp mënuñu dara dañuy toog rek fi ñu toog jël garniture dem HLM comme ni nga ko waxee wala ñu dem Colobane jënd ay kii ñëw teg di jaay rek affiché et loolu tamit dañ ko wax te dee parce que xam nga leen mooy couture mhm. pour exemple suñu ne el vision média mhm. waxul Elvision Média rek yam fa. nga gis ko ci bunt bi. bala ngay dugg di nga xam suñu directeur. le moom lu tax mu ne Média soo ko micro dina la définition effectivement mais tey métier ñu ngi ubbi atelier koo ci wax lan mooy ñaw du la ko wax. te ñaw ba ko tubaab bi di créer lan la njëkk a mhm. dafa big mhm. silo ñu ne ko lu la créativité mhm. décrit de façon générale. la capacité di individu ou d'un groupe magique mu ne nit ki su bëggee bëgg na def dara ci métier bi na respecté bi deuxième ñu ne ko ngir lan mu ne humanisation bi nga xam ne moo nekk ci bopp bi moo nekk ci cerveau bi na koy génn def ay design nam xoolal Sénégal ñaata téer ngay dékk micro ñu ne ay styliste lañ te duñu ay styliste

kon yow li ñu la wax mooy de def design. maître mhm. tey yu bëri xam nga lan lañ yaakaar seen succès mooy garniture. effectivement te alors que affaire du garniture. Mhm. affaire yu couple la xoolal soo xoolee. benn tailleur mën a tudd yor kër. Mhm. maa ngi bind benn téléfilm boo xam ne mi ngi tudd Baye Bala 5. man maa ko bind ma tuddee ko téléfilm boo xam ne mi ngi tudd Baye Bala 5 la réalité de la méticulture xam nga lu tax. maître tailleur boo gis atelier wu. atelier bi day rafet. moom suy xëy nga yaakaar ne kii lu dara mhm. fekk ne atelier baa rafet mais poche bi amul dara te lu tax loolu mooy dañoo fàtte li nga xam ne moom lañ doonoon mhm. parce que suñu magu yi njëkk dañ daan suñu yaay suñu leen musaan a ñawloo ndoket wala robu xew mhm. suñ si feree ba feree ba feree suñ calculer du mat sax 2800 parce que dañuy jënd wëñ jënd bee setin xaaj xaajaat mais tey météo boo gis bëgg dafa bëgg sagu mooy lan koos jox mu ne damay def garniture nañ bàyyi garniture bi te comme li nga wax tamit sànq dëgg la dama la koy dëggal mhm. métiteur su nekkee 100 lañ benn ba ci man mhm. su nekkee 100 métiteur ñoom Sénégal mhm. jàppal ne 90 yëpp kenn yooyowu leen jox projet mais sa doom li may digal suñu président sa doom si nekkee dafa nekk xale xamul da koy woo ci biir néeg xamal ko espace yi ñu defalee ay formation am na espace yoo xam ne pour formation naka la ñuy monter manche naka la ñuy monter braquette formation yi mun na fay ay ay nit ñu defal ñu formation mais avant mu ñu defal formation ñun mën nañ ko xam nañ ko kon moom lan la war a def mooy usine chinois bi na xam ne bis bu liggéey Séné parce que machine yaa ngi port bis bu ñu ko exploité Sénégal agression bi dina bëri sàcc bi dina bëri naan bi dina bëri yaakaar bu tas bëri te réew kat Kocc Barma nee na bu yaakaaru réew tasee ndaw yi sànku nañ te ku sa ndaw réew sànku jàppale ne doo am ndam ok kon da jéema wax ak gouvernement bi rek parce que am ngeen seen ministre da ngeen da ngay jéem a wax ak moom rek dénk ko ay kàddu mu dégg li nga wax nga xamante ne dina ci bàyyi xel ba usine bee mu defar pour chinois yi mu jox ko doomu réewam muy Sénégal. waaw xam nga euh, lan laay wax euh, Sénégal. Mhm. jikko ji nit ñi yor tant que bàyyiwuñu ko. Mhm. senegal ndam du am. Mhm. xam mooy lan. mooy soo doon nekk doomul ministre. wala sa nijaay nekkul ministère. du am dara. ñaata jeune ñoo nekk ci banlieue bi jàngi métier ba pare seen pap bëggoon leen a jëndal machine bu 15000 francs wala machine bu 150000 francs yàlla moom leen yow da ngay xool usine bi nga xam ne 20 milliards soxna si 20 milliards du caaxaan 20 milliards lañ dugal ci projet boobu 20 milliards 20 milliards yow soo jëlee nga ne non tailleur bu ci am 40 tailleur bu ci am euh, carte professionnelle sa commune dinañ fa bàyyi 500000. téeméer bu nee nañ la lebal cinq cent mille cinq cent mille yi chaque euh, un mois ngay dugal lii chaque un mois ngay dugal lii mais loolu su boobaa dañuy jàppale vingt milliare yooyu mën na cee defar téeméer yu bëri mais vingt milliards soo ko jëlee vingt milliards nga jël ko jox ko ay chinois kon ñun dañuy daanu te bëri na téeméer yoo xam ne tey yàlla may na leen ñu am ndam seen métier ñu waroon see tukki ñu ne ñoom dañuy tukki duñ dem fenn dañuy taxaw toog pour jàppale seen réew mais nag ndaw su nekkee mi ngi jàppale réewam da koy dooleel. deuxième bi ministère bi man li ma koy digal lenn rek la mooy ki nga xam ne moom la jiital pour mu jiital téer yi man ànduma moom tey ànduma ak moom ëllëg. xam lu tax mhm. parce que nit ki mhm. sooy topp sëriñ mhm. te gëmoo gëmoo ko doo leen a am mooy moom mi nga xam ne moom lañ jiital gëmul métier bi. parce que da chef de quartier mm-hmm. bon bon bon bon war mm-hmm. conférence de presse mm-hmm. wax nit ñi ne mais def président parce que nous sommes troisième euh, ba ministère waa euh, waa Thiès mars nañ suma ma fini fi nii réunion laa war ak atteindre pour lan pour non nous disons non ne du am mhm. kon lu may ministère bi moy nañu woowaat mhm. su bëggee mag ñooñu mag ñi muy woo ngir yalla amul njariñ parce que mag bo xamni jang ni métier ba retraité mhm. nga diko wo soko joxé ben joxee benn wala benn trois cent mille la waaw mais ñun ñi nga xamni ñoo mom métier bi parce que rew ndaw a koy defar ànd mag mu xelam sel

bëgg nga ko képp koo xam ne métier tax na ñu jox la cër bi la yàlla jox mhm. ñu lay woo la 11 mai incha allah à partir de 9 heures pile mhm. jour vendredi lay nekk ñu nekk place de l'Obélisque mhm. xeexuñu nekk xuloowuñu mais kenn ku ne am na droit casse te li may wax tamit bañu ñu si ba def grève de la faim bañ ñu si dara parce que ñun nekk suñu bopp la ñuy xeexal dafa am ñoo xam ne ñu ngi seen biir yaay yàlla te leen teg ay mission bu chinois yi ñëwee mission yi day échec am na ñoo xam ne ñuy war a jëndal seen yaay 4-4 si métier bi lañ ko yaakaare woon am na ñoo xam ne seen bàyyi labal nañ leen lu ne si métier bi lañ ko yaakaare te doomkat su demee bay munta teral waajuram mun na gas pax te gorkat su moomul sàcc moomul njublan moomul fen moomul def loo xam ne ëllëg nañ ko téye 100 mètres muy def day dee ak naqar te ku dee ku naqar keneen ñu suul la kon nañu jàppale jeunesse bi ah ma benn politicien nekkuma di guerre ak kenn présent Macky Sall sama président la sama fierté la sama papa la ministère bi sama père la sama lépp la mais daal nañu wax ne ki ñu tegal ci bopp téeri noo ko wàcce troisième tamit ki nga xam ne moom nee na moo jiite téeru Sénégal yi bu dëgg benn oto mënut am ñaari chauffeur kan moo ko voté fa lañ defee assemblée générale kenn yëgu ko kon kooku su nekkee dafa am euh, benn magasin mu taxaw ne moo jiite téer yi jiitewul benn téer mm-hmm, mm-hmm. boppam rek la fi nekk pardon nee nga am na koo xamante ne moom moo jiite tailleur yi mm-hmm. est-ce yaa ngi ci association bi pour euh, parce que tailleur yi dañoo bari te yéen ci seen biir ju woowoo leen parce que ku ci nekk da ngay tendance sa morom naan kii maa ko dàq kub maa ko dàq ñaw euh, dama gis ne gouvernement bi foofu tamit dama ciy ànd ak yow Euh, dinaa ko blâmer tuuti parce que tamit euh, métier tailleur bi waroon na ci teg koo xamante ne au moins moom jaaroon na ci métier tailleur parce que tamit euh, ki nga xamante ne ci métier bi muy yëngu boo ko falee loolu ne kii moom mooy jiite tailleur yi nekk ministère mu fal ko loolu kon moom dina leen mën a jàppale dina xam yéen lan ngeen di ñaxtu mais kañ fa teg kooku xamul musul yor ciseau xamul lu ñuy daggee xamul dara kon kooku moom du mën a xam yéen lan ngeen di métitlu et tout mooy lool mais yéen ci seen biir tamit juboowoo leen fautif bi ci yéen la nekk parce que kooku moom génn na am fitam ne moom moom lañ nommé moom mooy président tailleur yi yépp moom moo leen jiite ba pare dem wax naa président gisante na ak moom kon kooku moom moo nekk fautif mais gouvernement bi nekkul fautif foofu moom dama leen ci blâmer yéen tailleur bu baax a baax a baax waaw xam nga lan moo xam nga njiit da nga koy yëgal ñëpp ñëpp d'accord ci tey su nekkee dañoo bëgg a jiite benn mbir ñu ne maître théorie que dañoo war a am président chef de quartier est-ce que da ngay toog rek ne kii lañ jiital chef de quartier da ngay dem ci maire ne ko war nañoo changer chef de quartier diw mais est-ce que bokk nga ci bi biñ biñ doon man wax la mhm. soxna si mhm. euh, bokk ma ci benn association théorie loolu mouvement laa bokk parce que bokk ma association mhm. association théorie que sa il y a rek parce que dañuy commencé faire, di natt mais au fond da gis kenn jël bi dem ak mais du ay association ay sos la man parce que bëggante wuñu deuxième bi man mouvement la mouvement lañ taxawal mhm. mouvement bi nga couture mhm. actualité de la métier couture mhm. su parce que man dara ci ci métier man tey kuy défilé ku dàq défilé su gaañoo tey tey wala ku dàq défilé diplôme mu am balaa may tëdd ci lal ma xam ko man couture laay nooyee si laay dox dara mënu um tey su nekkee Sénégal nee nañ dañoo bëgg taxawal benn président bees dama koy xam Marième Faye Sall am na métiteur yu mag yu mu fi dalaloon pale yow naka la la nit ki di dalalee nga war ko wax am na métiteur yoo xam ne seen courant yi ñu ngi coupé am metteur yo yoo xam amuñu place am metteur yo yoo dañuy louer jox leen espace jam ñaajo ñu ñuy fay par wèr ñu ñuy fay seeni kër ba keroog ñuy matal mais xam lan lañ doon wax moy suñu démé euh argenti suñu bagage yi fere bi day métteeg séjour bi day gattak xam nga kon kooku waxul ki demagul ce ko dégg nga wax ci moy ñoom waxuñu ngir peuple bi mhm. dañuy wax ngir la ngir ñom suñu bëggee tukki yóbbu seen ñaw ñu yombalal leen ko man damay sant yàlla bu baax a baax parce que lu tax may sant yàlla mooy ñoom seen niveau toll foofu mais man li ma gëm mooy ñoom war nañoo delluwaat seen xel parce que tamit nit ki soo eggee ci kaw war ngaa fàtt war ngaa fàttali ku la may loxo ay nit rek leen may loxo mais ñoom sagam na la seen xel tool duma leen ci wax lenn parce que nit ku ne sa niveau rek ngay waxee dañoo nit ki balaa muy wax rek balaa ngay mu jëf. nit ki su waxee rek nga xam kan la su jëfee nga xam kan la kon ñoom ñoom la concerné mais tey li ma doon sant président di ko di ko ñaan yàlla mu defal ñu ko mooy na woo métier professionnel ngir yàlla ndaw ñi laa wax te ba pare euh, Sénégal su nekkee kooku dafa ne moom moo jiite téer yi ko dëgg parce que waxu dëgg benn téer voté wu ko yëguma ensemble bi fan la yëguma réunion bi fan la te invité nañ ko fi euh, benn sortie émission ataaya mm-hmm. invité nañ ko fi yàggul mm-hmm. moom mu ne dafa ne moom moo ne day xeex garniture yi mm-hmm. te këram fees dell ak garniture ba jour bu mu koy kaas rek jour boobu avant muy quitté atelier am benn client am livré na ko benn ñawam nañ ko garniture te moo génne xaalisam cinquante mille joxe ko kon koo gëm na li muy wax okay gëmul luy wax. ok yéen a ngi ba tey ci seen débat du jour dafa mel ne li ñu cëralewoon ci waxtu mi ngi waaj a jeex dañ la daal di rek nga daal di tàggatoo sa mbokk yi seetaan Vision waaw lu sant mhm. ak bu baax mhm. ñaan def kër gi. Mhm. dina dafa am benu célébrité. bu ma bàyyi xel lool. dama bëgg ko lool. yàlla xam ko. muy Bougane fu am foo ma ko teg bët te lenn rek laa ko tegee bët mhm. mooy gëm boppam da xool fi mu jaar jóge Walf nekk fu emploi di fay di di jaar ci taxi mhm. mais tey anamu mhm. lu mu yor bëri na média yoo xam ne yoruñu ko kon Elvision ki ci njiit bi seen directeur général xawma ku muy ànd ak te bàyyi ko xel mais ku muy ànd ak te bàyyi ko xel mun na la yóbbu fenn parce que fii mu yegg si nii caaxaan yegg si wu ko fi

métier bi moo ma soxal benn mouvement laa bokk muy mouvement euh, agriculture benn mbir laay soo sama dàll mooy gëm sama bopp kon nekk maa ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu tamit sama waajur di ñaanal yàlla képp ku sa waajur dund yàlla na yàlla def sa mébét ak sa mission yàlla mottali ko képp koo xam ne sa waajuram ci biir suuf yàlla na ko yàlla yërëm mais maa ngi kontaan bu baax a baax di wax ne tamit gars buñ fàtte bu soob yàlla 11 mai à place de bu ko kenn fàtte xeexuñu xuloowuñu sànniwuñu xeer dañuy taxaw ñu dékk ñu micro ñu wax lu ñuy métti loolu rek moo fi am. ok ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon di création ñu dalaloon ko fii ci seen émission débat du jour euh, ñu ngi leen di tàggu ba beneen yoon ak beneen gan macha allah.